juróomi at rek kooku moom su fekkee ne yaa ko moom bëgg koo jaay mën ngaa jekki-jekki jaay ko jërta la bu fekkee da nga ko jënd itam moom ko moom gu yees bis boo demee bëgg a joteeg moom mën ngaa jekki-jekki joteeg moom kooku jërul laablu ndax xam ne ni ku toll foofu moom mënta ëmb te laablu wóorlu rek ëmb moo tax ñu koy def wa man ibtaaxa koo xam ne jënd na xaamilan aji ëmb min xayrihi tukkeej ku dul moom aw malakaha wala mu moom ko bi xëyil bay ci dul jaay fala yaqrabuha du ko jege wala yetta laddadu te du bànneexu min xaa ci moom bi chegin ci dara xataa tabaxa ba te muccee doom ja nee na boo jëndee ab jaam bu jigéen fekk mu ëmb mbaa sax da nga ko amee ci neneen nit ki ñu may la ko mbaa nga doon ko ak nu mu la dikkee rek waaye moom daal fekk na mu ëmb kon faaw nga bàyyi ba mu am doom nga door a mën a joteeg moom ndax bépp ëmb boo xam ne bàyyi ko wul ci yow doo ko sañ a suuxat ba tey jigéen ji nekk ci néegub sëy bu moyen yàlla ba ëmbe ca wala kenn jaawale ko joteeg moom ba mu ëmbe ca it ndegam jëkkëram moom ëmbul ko rek faaw dana bàyyi ba mu laablu ba set maanaam ba ëmb ba juddu mu door a mën a joteeg moom su fekkoon ne moom jëkkër ji nag daa joteeg soxnaam ba soxnaam ëmb soxna sa door a wëlbatiku nag mooy yàlla mbaa kenn jaawale ko nag nga xam ne ëmb ba ci nekk kon jëkkër jaa ko ca def kon moom daa ñu sib rek muy joteeg moom te ëmb ba judduwut waaye nag ci sib rek la yem ndax gis nga ne ëmb ba ca nekk moo ko ca defoon njëkk mooy yàlla ga wala njëkk jaawale ga. ba tey ñu jàpp bu baax ne ku ñu may soxna nga teel a yëg ne daa ëmb bañ a joteeg moom dara dara kon moom bu ëmb booba jeexee ba mu laablu na war a laabloo ba set wecc kon mayees na la koo mayaat du wàññi dara waaye nag bu fekkee xamoo ko nag ba joteeg moom ca jamono ëmb googee nag jeex na bu fekkee di yaa ko ëmbal dalay araam araamuk faw faw faw bu fekkoon ne yaa ko ëmbal nag ñu wëlbatiku may la ko nga joteeg moom du tax loola araam araamu faawu faawu waaye nag dañuy bàyyi ba mu am doom ba tegaat ca yeneen yetti laab nag ñu door la koo mën a mayaat was sukk naa dëkkukaay ba li kulli mutallaqatin ñel na képp ku ñu pase madd xool ni guddi ku ñu wéetal bihaa ak moom neen nag jigéen buñ ko fasee te fekk na jëkkër ji ko fase wéetoon naag moom kon diiru idda ja jëkkër jaa ko gàddul ab dëkkuwaay dëkkuwaay ba mu nekkoon sax ba mu fasee ko ca ca la war a toog idda woo ca moom ci boppam bu mu génn te bu ko góor gi génne laa tuxrijoohunna min buyootihinna wala yaxrujuna joojee mu waxam buñ nee nag képp ku ñu fase te fekk ñu wéet ak moom moom moom dëkkuwaay ba dañoo bëgg ko wax rek diiru idda jay jeex waaye nag lay tax bu moom kër gam nekkoon ba néegam nekkoon mooy rek bu jubóon a jëkkëram ci ba mu koy takk ne ko da may wutal ab néeg mbaa kër xam loolu daa bokk ci alali sëy ji su boobaa buñ tàggoo itam moo ko moom waaw waaye nag bud loolu moom diiru idda ja rek lay moom dëkkuwaay ba bu idda ji jeexee rek mu daal di génn jëkkër jëlaat ab dëkkuwaayam wala nafaxata deetub dund illaa lillati ndara ñeel jigéen ja nga xam ne tulli xat faseef na ko doona salaasi lu yees ñett jigéen ji nga xam ne dañ koo fase day tax jëkkëram jooje ko fase war di ko dundal mooy lam ko fase di benn mbaa ñaar nga xam ne agul ci ñett waaye bu ko xasee fase ñett mbaa lam ko fase daal moom amutum pay li daa bëgg wax rek ne ku fase pasem pay li moom pasem pay li dañ koy jàpp ne soxna nga xam li fekk it dajee jeex rek góor ga moo war a dundal soxnaam soosee bu dee passé ñett nag moom te ëmbut moom dund du ca war walil xaamil ak ñel aji ëmb kaanan moo xam nekk na mu tallaqatan di ko ñu fase waahidatan menn aw salaatan wala ñett nee na nag boo fasee soxna te fekk mu ëmb moom ëmb bàyyi tax faaw nga war koo dundal moo xam da nga koo fase benn passé wala ñaar wala ñett ñoo ci yemoo fekkoon ne ëmbutoon nag moom te nga fase ko ñett xam nekkul passé pay li kon moom dund ca war boo déggee tut dund rek na xamal ne dugalaale nañ ca koddaay ndax dund ak koddaay faaw ñooy ànd wala nafaxat déet dund li muxtalixati ñel aji summi koo ja illa fil xamli dara muy nekk ci ëmb aji summi koo pees woon nañ ko mooy jigéen ji nga xam daa doyal ca sëy ba ba jaral ko fay alal ñu may ko nag léegi baatam ba mu fay alal ku mel noonu nag nee na bu fekkee ne ambut ngir ba muy iddaw yow jëkkëram ji summi ko moom doo ko ci dundal waaye bu fekkee ambu na nag moom am bàyyi tax faaw nga war koo dundal man ngaa takk rek ne képp ku ñu pase pase moo xam ne sañu su koo fayli rek bu fekkee ambul rek ab dund du ca war ca juróom idda ja bu ambee nag moom faaw dund daal cay war wala nafaxata déetub dund lil mu laa xandati ñeel ku ñu raboon teel waaye in kaanam ak doonte nekkoon na xaamilan di aji ëmb weesu woon nañu rëbbonte bu fekkee ne jëkkër jabar ji waatoo nañ ci kanam yoon ba góor gi waat ni kat li juruma ko bañ tàggoo kon kenn du ko wax ne ko jigéen ji iddawu yaa koy dundal ndax ndegam ëmb ba waat na ko ba ne juru ko ba noppi rek kon kenn du ko wax ne ko yaay dundal jigéen ngir ëmb bi ndax moom ëmb bi la waat na juru ko mu waral rëbbonte ga wala nafaxata deetub dund li kulli moo taddatin ñeel jëpp aji xitawu min wafaatin cig faatu maanaam jigéen ju iddawu cig faatu mooy ku jëkkëram faatu rek kooku moom dañoo daal di war a gaaw miraas ndax mu am wàllam mën caa dund waaye nee nañu sax bu fekkoon ne jëkkëram daa faatu te yëgu ko muy dund ci àll jëkkër ji sax du tee bis bu ko yëgee itam la mu weesu lépp ba jëkkëram faatoo lee dañ koy laaj ne ko fay ko da koy war a fay nga xam ne moom bu góor gi faatoo rek ñu daal di war a taxawal alal ji seet nañ koy miraase ku nekk am sa wàll wala xaaj ñal na jigéen ji asukkanaa dëkkukaay ba in kaana dem nekkoon ak daaru kër ga lil mayiti di ñeel néew ba aw xat naqad wala nga xam ne teewaloon na kiraaha liyaasam ba nee na nag bu fekkee ne jigéen jëkkëram faatu jëkkëramu moomoon kër gi mu nekkoon moom jigéen ji mbaa moomu koon waaye fayal na luyaas ba kon foofu lay toog idda woo fa ba idda ji jeex te it kenn du ko sañ a génne bu yàkkamtee bay miraas dañuy wax ka moom kër ga ci miraas mu ne ko ah soxna si kat moom ci lay iddawu ba noppi nga door a jël sa kër buñ doon jaay kër ga ngir ay bor wala yooyu itam ne ki faatu leen amee ay bor ñu koy jaay itam daañu leeral koy jënd ne ko ah ñu ko daam jigéen ci nekk di iddawu te sañu su ko génne faaw te buñ la jaay itam bala ngaa moom iddaam jeex bu fekkee ne jëkkëram fayoon nag luyaas ba itam noonu foofu la jigéen jee toog iddawoo fa rek ba idda ji jeex wala tax ruju du génn min baytihaa tukki ci néegam ba fii talaaxin ci passé aw wafaat wala faatu xataa tuttimma mbate mu matale alxiddata idda ja nee na jigéen war naa sàmm bañ ko fasee mbaa ba ba jëkkëram faatoo war naa farlu ci toog ca am néegam ba idda ji jeex ndax loolu yàlla moo ko santaane kon biñ ko fasee ak bu jëkkëram faatoo yëpp na toog ca am néegam ba idda ji jeex illaa an yuxrijahaa ndara bu ko génne rabbu daa di borom kër ga wala mu yàqabal te nanguwut ñu kiraay ci luyaas ba maa loo xam ne yushbihu dana nuru kiraa almisli luyaasub kem daa am yem ci nag maa yushbihu su boobaa nga firee ko maa la nga xam ne yushbihu dana jaadu rek waaw foofu loolu lay firi boo yemee ci maa yushbihu fal taxruj kon na génn bu fekkee jigéen ci néeg bam na iddawoo jëkkëram moomu ko woon da ko luye woon rek léegi nag lam fayoon ci luyaas ba jeex te borom kër gi nanguwut ku ko fay luyaas bi jaadu daa wax lu jafe-jafe kon jigéen ja mën naa génn seetiwaat feneen fu mën a toog iddawoo fa fu mu njëkk a yem rek te mën faa iddawoo ba tey day toog foofa rek ba idda ji jeex waaye foofu aajo woon a teqale jàppal ne soxna si nga xam ne nga koo fase moom faaw yaa ko war a wutal fu mu dëkkee ba idda ji jeex nga xam ne kër gi mu dëkkoon su lakkoon baa mu màbb itam du tee nga wutal ko feneen bu fekkee da nga koo luyeeloon itam te luyaas ba jeex itam borom kër gi nar koo génn it faaw yaay wutaat feneen rek waaye bu dee passé moom jëkkër ji moo war a taxaw soxna sa wutal ko ab dëkkuwaay ba kenn idda jee jeex mu des nag faatu faatu nag moom su fekkee ne góor gi faatu te yoroon jigéen ji moo moomoon kër ga moom ni ñu ko waxee léegi faaw foofu la jigéen jay toog ba kera idda ji jeex bu fekkee fay na luyaas ba itam noonu noonu lay mel waaye nag bu fekkee fayutoon luyaas ba lépp lépp lam ca fay bu jeexee rek te jigéen ji mën a fayal boppam baax na su mënta fayal boppam na génn seeti feneen wa tuqiimu dana sax min mawdihi ci béréb ba allasi ba nga xam ne tan taqil dana taxu ilee jëm ci moom xataa tam xadiya ba jeex alxidatu iddaja bu fekkee ne jigéen ñi nekk ba doon iddawoo mënatu faa toog ngir ngànt kon na génn te fu mu njëkk a yem rek te mën faa toog mu daal di fay toog jàpp jàpp ko ne mooy néegu iddaam ba kenn muy amati ngànt soo amati ngànt du la ko génne woon foofu itam bu ko dalaatee fii mu seetiwaat feneen rek toppoo ko noonu ba kenn idda ji jeex waaye fépp fu mu nekk te amu fa ngànt lu ko fay génn rek foofu lay jàpp ne mooy iddawukaayam ba kera idda ji jeex wal mar atu jigéen ja tor dexu dana nàmpal wala daxaa doomam fil xismati ci buumu sëy ga ilaa an yàkkoon na rek ba fa nekk misluha am kemam laa yor dexu du nàmpal jigéen bu tolloo ci buumu sëy nga xam ne jëkkëram fasiwu ko bu amee doom ci sëy ba ma war a nàmpal doom ja te nàmpal ga kenn ko ci fay dara lu may daa bokk ci ñoo xam ne waroomi daraja lañ ba duñ nàmpal ne ni waa Qurayshun waa Quraysh gi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ñoom dañoo aada woon duñ nàmpal dañuy nàmpallu bu jigéen ja bokkee ci mel noonu nag bu nekkee ci buumu sëy itam lu tax nàmpal ga war ko kon baay ba mooy seet keneen mu nàmpal te moom baay ba mu fay kooka bu xale ba amee alal ba tey baax na mënees naa jël ci alal ja fay kay nàmpal walil mu tallaqati ñeel na ka ñu fase rabaax wala diha nàmpal doomam ja xala abi mu war baayam jigéen biñ ko fasee pase moo xam ne amul fayli kon nàmpal nga waratu ko ne sax biñ ko fasee pasem fayli moom mu nekk ci buumu sëy ñooye moo doom jam ca am moo ko war a nàmpal waaye nag buñ ko fasee fase pase moo xam ne amutu payli moom nàmpal nga waratu ko léegi nag kon mën naa jox keneen muy nàmpal te bàyyi bàyyi fay bàyyi xale ba mooy fay waaye moom ci boppam moom du fay ndax nàmpal gi waru ko wala xaa ñeel na ko anta aqusa mu jàpp ujrata radahiha payub nàmpalam nga incha allah dem soob na ko ki nga xam ne moom nàmpal waru ko benn muy borom daraja ja nga xam ne jigéen ñam bokk du ñu nàmpal mbaa muy ñu fase fase moo xam ne amutu fay li ba ñu wax ne moom ci bopp nàmpal gi waru ko ku mu ci mën doon bu ko neexee nag moom ci boppam muy nàmpal ba noppi nag ñu koy fay fay ga day naroon fay ab jàmbur moom ñu koy fay waaw moom mi nga xam ne nàmpal waru ko léegi mën nay nàmpal te lañu waran fay ab jàmbur moom ñu ko koy fay
wala xaa jum wax léegi am na ñu koy delloo ci jigéen ja nga xam ne daa amee daraja ba wërta nàmpal ndax ñam bokkal du ñu di nàmpal xam ne kooku doonte sax doomam ja moom rek la nangu nanguwul keneen nga xam su ko nàmpal doon du nàmp du tee rek sañ na buy nàmpal bàyyi ba di ko fay ndax nàmpal ka waru ko am nañu delloo wala xaa foofu ndax bañ mu doon ak baamu wal xadaanatu yarga lil ummi ñeel na ndey ja ba'da talaaxi ci gannaaw pasema ila xtilaami zakari ba ca géntu góor ga wa nikaaxil unsa ak seyig jigéen ja wa duxooliha ak wéetam ak jëkkëram yar moo yore xale bi di ko raxas ba mu set di ko solal di ko tëral di ko yëkkati di ko aar loolu mooy alxadaanatu loolu la wax ne nag su fekkee ne jigéen ji jëkkëram da koo fase doom jëm ci am jigéen ji moo amee sañ-sañub yore ko noonee di góor ga du ko sañ a nangoo ci moom cosaan la nag nee nañ mooy dafa am benn waay bu fase woon soxnaam jàpp ca doom ji ne ko daa koy jël bu ñëwee ci yonante bi yonante bi ne jigéen ja anti axaqu bihi maalam tan kixii yaa gën a yeewee sa doom ji yore ko li fekk demoo ba sëyiwaat ba sëyiwaat ga dina gàllankoor ci yore xale bi loolu moo tax nag képp ku tàggoog soxnaam daal te fekk soxna sa am fa doom na xam ne soxna sa moo amee sañ-sañub yore ga di toppatoo te du tee nag moom baay bi moo war a dundal moo war a wodd waaye nag yore ga moom jigéen jaa amee sañ-sañ ba lu may nag mu waxtaan ak moom bañ teg ko ci ay sart yoo xam ne moo koy tax a sañ jël doomam moom góor gi kon jigéen ja mooy amee sañ-sañub yore doom joojee
bu dee góor ga ba kera muy kàllafe te it kàllafe ga dañ koy teg ci at te bañ koo teg ci lu mel ne sax kawarug naq déedéet day am fukki at juróom-ñett bu dee ci gis-gisu waa Malik donte da caa boole dof wala mu lompa ñit jëm yar ga ci boppam moom ci wàllu yaay ja foofu la war a yem du tee nag bàyyi ba moom jàll di ko dundal ndax la muy kàllaf yépp ndegam dafa dof wala mu lompañ mënta yor boppam faaw bàyyi ba moo war a gàddu dund baag goddaay la muy wéy bu fekkee doom ca jigéen la jigéen jaa amee sañ-sañ bi yor ko di ko toppatoo ba kere ñu koy may jëkkër ba jëkkër ji wéet ak moom su boobaa nag foofu la yore ngay door a yem wa daalika loolee nag wax dul ummi ci gannaaw ndey in maatat ndem faatu na aw nukki xat wala takkaateef ko dil jaddati ñeel na maamu jigéen nee na nag yaay ji nga xam ne moo amee woon sañ-sañu bi yore doom ja su demee ba amee gàllankoor te loolu mooy mu faatu mbaa mu sëyiwaat sëyiwaat boo xam ne dana ko tee mën a toppatoo doom ji kon dañuy seet maamu jigéen ñi xale bi te mooy ka jur yaayam rek waaw kon kookee nga xam ne moo jur yaayam moo war a yore xale ba suma lil xaalati topp ñeel ndey ju ndaw su fekkee maam mu jigéenam xale ba nekku fa baa ma nga fa waaye am na gàllankoor kon ñu seet ndeyam ju ndaw ndey ju ndaw yi xale bi kooku nag mooy ki bokk ak ndeyam ndey ak baay moom la ñuy jiital teg ca ka bokk ak moom ndey dong mujj na ka bokk ak moom baay dong ndax dañuy jàpp ne wàllu ndey moo ëpp yërmande kon dañoo jàpp ne wàllu ndey moo ëpp yërmande ba nga xam ne fu nu fi tuddi ab tegale fii rek xamal ne bu dee ci yaari wàllu yëpp moom ndey ak baay mooy jiitu waaye buñu demee bay teqale nag ndey dong mbaa baay dong nag wàllu ndey ga la ñuy jiital mujj wàllu baay ba ak foo ko fi dégg rek danga ko déggaat sa xëy na ay yooni yoon fa in lam yakun dem amut min zawi rahimi ummi ci waroom jege ñaale ndey ahdun kenn fal axawaatu kon bokk yu jigéen ya wal xàmmaatu ak bàjjen ya daa wax ne bu fekkee ña jege xale ba ci wàllu ndey war ko yore fekkee kenn nekku fa kon say boo ñu seet ay ay mbokkam yu jigéen kon dañuy njëkk a seet mbokk mu jigéen ma bokk ak moom ndey ak baay teg ca ma bokk ak moom ndey dong mujje ma bokk ak moom baay dong su mbokk yu jigéen yi jàllee ñu teg ca bàjjen ya dañuy seet bàjjenub ndey ak baay teg ca bàjjenub yaay rek teg ca bàjjanub baay rek bu ñu nee bàjjanub yaay rek mooy ki nga xam ne moo baayu xale bi ndey rek lañ bokk bu ñu nee bàjjanub baay rek mooy ki nga xam ne moo baayu xale bi baay rek lañ bokk. fa in lam yakkoonoo ndéem amuñu fal xasabatu kon geño ga xanaa bu fekkee ne ñeemu wax ni muy mbokk yaak bàjjan yi amuñu kon nañu seet geñog baay ga. dafa wax nag waxin wu gàtt gàtt ci ni nga xam ne moom la ñuy tegalee ña war a yor gone ga waaye daan la ko tegalee léegi nga dégg li mu tegalee nag mooy nuru bëgg a wax kon jàppal ne xale bi ki ko war a yore ci ci jëkk mooy yaayam yaayam saa yoo xam ne jëkkëram fase na ko te sëyiwaatul bay am gàllankoor mbaa beneen gàllankoor kon yaayam moo amee sañ-sañu bi yore xale boobule bu fekkee ne yaay ja nekk fa mbaa sëyiwaat na ba am gàllankoor kon ñu seet maam bu jigéenum xale bi maanaam ki jur yaayam maam bu jigéen mi jur yaayam kon moo cay topp su fekkee ne seet nañ seet amul maam ju jigéen moom xale bi ñu seet ndeyam ju ndaw maanaam ku bokk ndeyam ndey ak bàyyi la ñuy njëkkee su amee teg ca ka bokk ndeyam ndey dong mujj nag ka bokk ndeyam bàyyi dong ndax dañoo jàpp ni wàllu ndey mu ëpp yërmande moo tax faaw ci wàllu yaram moom ka féete ci wàllu ndey kese moom la ñuy jiital door caati ka féete ci wàllu baay kese su fekkee ne ndeyam ju ndaw nekk fi moom gone gi ñu seet maam ju ndaw maam ju ndaw mooy koo xam ne rek ndey ju ndaw ndey ju ndaw la woon ci yaayam li ngay waxee sa baay bu ndaw rek nga xam ne moo bokk ak sa baay ba tey boo nee sa maam ju ndaw mooy ka bokk ak sa maam rek kon kooku moo war a sës bu fekkee ne kooku amut ñu seet maam ji jigéen ji nga xam ne moo jur baayam koo tudde ummul abi kooku moo ci war a topp maam mu jigéen mi nga xam ne moo jur baayam bu bu kooku jàllee ñu teg ci bàyyi ci boppam bu fàtte ni nee naa woon nag bu ñu nee ak góor ku mel ne bàyyi moo amee sañ-sañ bi yor itam day aaji woo mu dend ak jigéen joo xam ne maanaam mu amee jigéen joo xam ne moo koy yoral yor ba dëgg-dëgg su bàyyi jàllee nga teg ci mbokk mu jigéen mbokk mu jigéen ñett la waaye da ngay njëkk tudd ki nga xam ne moo xale bi ñu war a yor ñoo bokk ndey ak bàyyi bu fa nekkut ñu seet ki bokk ak moom day dong bu fa nekkut ñu seet ki bokk ak moom bàyyi dong ki bokk ak moom bàyyi dong faaw mooy mujj ndax bu dee ci wàllu gi dañuy jàpp ne wàllu ndey gi mooy ëpp yërmande su fekkee xeetu mbokk mu jigéen amut ñu ñëw ci bàjjan bu fekkee ne am na bàjjan moom xale ba kon bàjjanam it da ngay njëkkee bàjjanam bi nga xam ne moom bàyyam dañoo bokk ndey ak bàyyi teg ci ba nga xam ne moom bàyyam dañoo bokk ndey dong mujj ba nga xam ne moom bàyyam dañoo bokk bàyyi dong su fekkee ne bàjjan amut nga seet ba xam am na doom ju jigéen yi mbokk mu jigéen am déet xam nga wàññi woon nga mbokk mu jigéen dangay seet nag ba xam xale bi mas naa am mbokk mu jigéen moo xam ne nekku fi mbaa am na ngant waaye mbokk mu jigéen moom it bàyyi na fi doom bu jigéen waaw su fekkee ne doom bu jigéen yi mbokk mu jigéen am na mooy sës bu fa amul nga teg ci doom bu jigéen yi mbokk mu góor su fekkee amoon na mbokk mu góor te mbokk mu góor ma am doom bu jigéen kon doom bu jigéen yi mbokk mu góor mooy sës bu kooka jàllee ñu teg ca ku ñu dénk xale bi maanaam bu fekkee xale bi am na ko bàyyam féetale woon ne ko yow laa ko dénk kon kooku moo war a sës bu fekkee ne bàyyam féetale ko woon kenn waaye àttekat bi seet na ba féetale ko kenn dénk ko it ba tey kooku moo war a sës ci yor ba bu ñoon jàllee nga teg ci mbokk mu góor xam nga tuddee nga doom bu jigéen mbokk mu góor bu nga tuddee doom bu jigéen mbokk mu jigéen waaye mbokk mu góor ci boppam tuddagoo ko soo weesoo ka ñu dénk kee nga weesu nag léegi mbokk mu góorum xale bi moo war a sës waaw moom it da ngay njëkkee mbokk mu góoram ma nga xam ne moo bokk ak moom ndey ak baay teg ci ma nga xam ne moo bokk ak moom ndey dong mujj ma nga xam ne moo bokk ak moom baay dong su fekkee ne mbokk mu góor wéy na nga teg ci maam mu góor waaw maam ju góor ba lay tuddagoo ko woon foofu nag loolu war a ñëwee ci tegtal bi ci ci ci ni ngay toftalee maam mu góor mooy sës ci mbokk mu góor su fekkee ne maam mu góor amul nag nga indi doomi mbokk mu góor su doomi mbokk mu góor amut nga indi doomi maam ji góor doomi maam ji góor nag mooy doon baay bu ndaw rek baay bu ndaw lañ jublu alxamu su fekkee ne baay bu ndaw amut nga indi doom ji góor yi baay bu ndaw waaw foofu lay sëse doomi baay bu ndaw foofu lay sëse gannaaw boo weesoo ñooñu nag saye boo far ci teg rek maam ju góor ji nga xam ne moo jur ndeyam maam ju góor ji nga xam ne moo jur ndeyam moom mooy rek mooy bàyyub ndeyam rek waaw bàyyub ndeyam moom ñu wax al jëdd abul ummi kooku nag moo ci mujj ci niñ koy tegalee teewul nag dañoo tëb foofu ñaar ñoo xam ne bu doon ci jamono yi ak njaam amee ñu doon di tuddee al mawlal ala ak al al mawlal aspal ñoom ñaar bokk nañ ci ñi amee sañ-sañ bi yor waaye nag dagam léegi mbirum jaam moom dafa jeex gisatuñ ko moo tax ñu far tegalee noonu ci askan rek te bu fekkoon ne ñooñu amoon nañu kon daañu leen tudd te jaam
wala yel sa mu du war ar rajula waaja an nafaxa tund ba illaa xalaa zawjatihi dara ci soxnaam kaanat moo xam nekk na mu nga niyatan di aji woomal aw faqiratan wala muy aji ñàkk day bëgg wax ñi nga xam ne nag yoon moo la sant nga dundal leen te sañoo koo bañ sa soxna moom yaa ko war a dundal dëkkal ko di kuutal koo daay donte moo la ëppale sax mook mi ñàkk ñooye moo du tee loola yow la war yow jëkkër ji kenn ngoo ko waxalaa ab way ak ci ñaari waajuram alfaqiirayni yi aji ñàkk sa ndey ak sa baay buñ ñàkkee te yow nga am yaa leen war a dundal bu fekkee ne ngaa ñàkk ne ñoom nag yoon du la forcé ne la tey nga am joom yu liggéey yor leen loolu moom boo ko defee rek baax na sàkku ci tuyaaba waaye yoon du la forcé moom ne la tey nga liggéey yor sa ndey ak sa baay bu fekkee nag doom yi dañoo limu kon dañuy seet dundub seen ndey ak seen baay ñu bokk ko kenn ku ne am loo ca gàddu dañ seet nañ gën a mënantee ñu ëppalente ca noona waxala sixaari waladihi ak ci way ndawee doomam allazina ñi nga xam ne laamaa la dit alal lahum di leen ñeel
xala dukuri war na ko ca góor ña xataa yaxtalimoo ba ba ñuy gént wala zamanata te deetu lompañ bi muy nekk ci ñoom waxalal inaasi war na ko ca jigéen ña xataa yun kax na ba dee fi takk leen waye duxula tey wéet bihin na ci ñoom aswaajuhun na seeni jëkkër nee na ba tey yoon moo la sant nga dundal say doom bu dee doom ju góor ja ba keram muy kàllafe te am wér ak kàttan mën a wutal boppam yaa ko war a yore bu dee ku jigéen ka yaa ko war a yor di ko dundal di ko dëkkal di ko wodd ba kera muy am jëkkër ba jëkkëram du wéet ak moom sa doom ju góor nag moom saa yu demee ba kàllafe ba noppi itam mën naa fàggul boppam rek sa jaan wàcc na bu la neexee nag laaj ko ba xam daa bëgg a toog ànd ak yow ci doxinu àdduna wala daa bëgg a beru lu mu ci bëgg rek nga fekk ko ca waaye yow daal ndegam moom kàllafe na moom sa doom ji góor ji te ànd naa xelam bu baax mën naa fàggu kon yow sa jaan wàcc na bu dee ku jigéen ka itam boo ko mayee jëkkër ba jëkkër ja wéet ak moom kon jëkkër jaa gàddu dund ba yow sa jaan wàcc na xanaa li mat a leeral foofu de mooy nee nañu sa doom bu jigéen moom boo ko mayee jëkkër te jëkkër ja mënu ko yorit nga xam jëkkër ja ku ñàkk la du tax dundub sa doom bu jigéen boobee wàcc la boog sa yaay ñooye moo sa yaay boo ko wutaloon péete muy wutal ko borom kër itam te borom kër ba néew doole mënu ko yorit du tax ab dundam moom sa yaay wàcc la ñooy ñaar moom nga takkaale ko foofu ñoo bëgg wax ne nafaxatul ummi al faqirati wa misluha al bintu laa tasqutu bizawaji lil faqiri wala nafaqata det ab dundu liman siwa haulayi ñeel ñu dul ñi min al aqaribi ci jegeñaale yi nee bu dee ci say jegeñaale moom ñi mu la ci waxal rek ñoom nga war a dundal ci yoon ku bokk te ñoom nag mën nga koy dundal ci sa coobare ak sàkku ca tuyaaba rek waaye ñi rek ñoo la war wa in ittasaha ndeem woomal na fa xalihi war na ko ixdaamu zawjatihi wutal ab surga soxnaam nee na su fekkee ne jekku nga ko te soxna sa nga yore moom itam yelloo na ñu wutal ko ku koy liggéeyal kon war nga ko wutal ku koy liggéeyal bu fekkee ne nag yow jekkuwoo ko baa moom ci boppam yelloo ko nag kon baax na waxaleehi war na ko an yun fiqa muy dundale xalaa xabiidihi ci ay jaamam wayu kaffinahum te mu leen di sàng ida maatoo ndeem faatu nañu jamonoy jaam amee nag soo amee jaam muy góor muy jigéen yaa ko war a dundal bu faatoo itam yaa ko war a wutal càngaay te itam nag sañu koo teg lu mu mënut boo ko naree teg lu mu mënut rek ñu waxal wax nga bañ rek yoon nangoo ko ci yow jaay ko waxtu li fa wóoteef na fii kafani zawjati ci càngaayal soxna fa qaala wax na ibnul qasim ibnul qasim ne fii maaliha nekk na ci alalam wa qaala wax abdul malik abdul malik ne fii maali zawji nekk na ci alali jëkkër ja wa qaala wax saxnoon sëriñ bi ñu wax saxnoon ne in kaanat ndem nekk na maliyatan di aji woomal moom jigéen ja fa fii maaliha kon nekk na ci alali boppam wa in kaanat ndem nekk na faqiratan di aji ñàkk fa fii maali zawji kon nekk na ci alali jëkkër ja man ngaa njëkk a takk rek ne képp koo xam ne yoon moo la teg ab dundam ndax da ngeen a jege ci mbokk wala ci njaam niñ ko xewoon léegi su boobaa yaa ko war a wutal càngaay bu faatoo fi mu toll nag léegi mooy soxna si nga xam ne yaa ko war a dundal nii mu dem nag ba faatu ana ku ko war a wutal càngaay am na yetti wax sax noonu mi teqali moom day wax ne su fekkee soxna sa bàyyi na fa lu ko mën a sàng kon ci alali boppam lañ koy sànge ko amul nag jëkkëram moo ko war a sàng abdul malik ne déedéet jëkkër ji moom ndegam bi soxna si faatoo itam xëy na sax bu mu séy gi dagg na waaye ba léegi sañ na koo sang bu bu ne woon maa koy sang man jëkkër ji kenn du ko xëccoog moom kon daawel ne kon sang gi itam nee na moo ko war a warlu kon jëkkër ji moo war a sang soxnaam bu faatoo ci ni abdul malik moom gisee ibnul xaasim nag moom moo wax ni moom daal soxna si ci boppam rek ak lu mën di am bu xasee faatu moom jëkkër ji càngaay waratu ko ca ci alali boppam daal ca lañ ko war a sànge su fekkee amul alal nag ñu dem ca baytimaal su fekkee baytimaal amut nañ dem ca mbooloom jullit ñi ñu dajale wutal ko càngaay waaye jëkkër ji daal moom bu xasee faatu rek càngaay waratu ko ca wax ibnul xaasim jooju nag moom la ñuy sukkandikoo ci la ñuy ubbee daal bu dee ci yoonu Malik leemu weesu ne su woomalee war naa wutal ab surga soxnaam ndegam soxnaam yelloo na ko mooy léegi li ñu tuddee mbindaan jamono yami taalif moom na nga xam ne booba jaam dëgg-dëgg am na bu fekkee soxna sa laata ñu ko koy may daa sartan daa sartante woon nag moom ne ko faaw kat danga may wutal ab jaam bu may liggéeyal su boobaa kon soxna sa mooy moom jaam ba dëgg-dëgg ndax dañ koo sartaale mu bokk ci alal yi sëy ja bu fekkee waxaale wuñ ko woon nag